seen naafileeg bis bi guddik fukkeel ga ak juróom-ñaar guddik fukkeel ak juróom-ñaar ku ca julli fukki rakka ak ñaar euh, rakka bu ci nekk ginnaaw fatiha da ngay jàng ina anzalnaahu ak wala aat lu ci nekk ñaari yoon ku ko def des na ko des na ko ci bindal tiyaaba ju toll ni limu ka njëkk gëm yàlla ba ci ka mujj gëm yàlla bu fekkee dafa tawatoon dana wér bu amee woon bor yàlla dana ko fayal bu nekkoon ci njàqare des na wuññi njàqare la te des na te des na ko musal ci sawara incha allah loolu mooy seen naafile bis bi jërë ngeen jëf